jërë ngeen jëf mbokk yi seetaan Wassare Lamb yooti nañ leen am kontaan ak mbégte comme ni leen koy defee saa su ne war nañ def na open press ba pare war nañ leen ñàkk jariñu war nañ leen Alioune Seye mbokk yi tey ñu ngi fii ci open press booy siin buur siin lañ nekk buur siin du ko fekk fii ci Medina muy def open press ak ay mbokkam ak ay xam di jàmm sëñ Bass moment bi may wax ak yow nii Bour Sine dugg si na sëñ xale bi ma nga noonu de kii ma nga ca combat ba noppi na balaa dara xew ma béjjën ba takk ci baat ba ndeysaan li lépp aada la ak ci làmb la bokk xale boo xamante ni macha allah waa Bawol a ci ginnaaw ak ñi nga xam ne ñoom ñoo say soppee ak presse bi nga xam ne dafa ñëw tey jël la nga ne ci diggu Medina waaye doon doomi Bawol say entraîneur yëpp wër la say mbokk say mbër say xarit ñoom Nokia bu Badajon ñoom Ngel Jon bu ñu limee sax fii la ñuy fanaan waaye daal say mbër say xarit yëpp wër la ñi nga bokkal écurie ak ñi nga bokkalul écurie waaw on subila ina wali yàlla jërëjëf Serigne Touba sant maam Seera Fall bu wër a wër waaw di noyu waa Medina gépp ak waa Bawol waa Refan bu ma limee juum di sant euh, douze millions habitants yëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm di noyu waa Refan bu baax a baax a baax ak waa Medina parce que feccum liir bu neexee yaa jaa jàpp sa mbag ya waaw man aw ma lu dul ñoom ñoo ma dooleel tey jii samay nawle yëpp dañu maa fekk si dañu maa ñaax nag tey maag waa ji mënul yomb parce que samay nawle yëpp dama leen naa ñu ñëw fekk si ma ma fesee ne def fulaak fayda jom fit daan jël bu rëy si kattanu Serigne Touba doolee maam Seera Fall Bour Sine liñ lay mooy dangaa jóge ci Mama Lamine mu doon combat boo xam ne dafa mel ni ñu bëri dañoo jàpp ne excès de confiance moo lay daan nga jëm ci kii nga xam ne moom mooy Eumeu waaw combat du benn préparation yi du benn boo ma xoolee rek xam ne pare na ñoo ngi ñaan yàlla suturaal ñu may ñu ndam lafal ñu cat ba ñu jàkkaarloog suñu adversaire ñu won ko li ñu liggéey pare nañu physiquement mystiquement moralement lépp tout pare nañu. boo waxee physiquement ne mystiquement sunu xel day dem ci sëriñ waaye foofu duñ fa xuus. Bour Sine ana lan la yaakaar pour na mën a daan ki nga xam ne moom moo di Eumeu Sène junior. physiquement laa wax sama doole laa jëkk a yaakaar parce que lam boo nee lamb da naa da ngay entraîné ji yóbbu si ñi nga yaakaar say waajur ñaanal la nga ñëw waaw loolu rek laa yaakaar waaw sama doole ak li ma li nga xamante ni yàlla mooy maye yàlla na ma yàlla may ndam loolu laay ñaan waaw. Bour Sine boo xewlee say mbokk wër la ana lan nga njëkk a yëg. waaw di leen sant di leen gërëm. sama deret dafa yëngu boo ma xoolee rek xam na sama yaram dafa tàng te waa ji sama adversaire maa ngi koy ñaanal wér ba le suur si yàlla may ma ndam du ma ko may dara man aw ma lu may xaar dañu maa yónni yàkkamti ma taxawaalu waruma te pare naa pour lépp nag pare naa pour lépp pare pour bëre parce que bëre dóor la ñu wax pare naa pour lépp bàyyi du ma bàyyi dara mais dafa mel ni waa ji da nga ko sóoraale waa ji ngay wax non waa ji sama adversaire la parce que nit boo jëlee avance am da nga war a da nga war a concentré wu si xamante ni moom la mën ak li mu mën nga nga liggéey si ak say mbokk boo boo am loo ko corrigé te pare naa xam naa fi ma koy jaar. xam nga fi nga koy jaar lan nga koy yóbbante. fii mu ne nii yóbbante amatu fi pare na dimanche ñëw na ba noppi di ñaan yàlla may ma ndam si kawam rek di noy waa Médina di sant monsieur le maire Bamba Fall mu ñëw jàpp si combat bi waa Réfane ñu ñëw jàpp si combat bi sama mbokki mbëri yi ñëpp ñu ñëw jàpp si combat bi dooleel ma ma jàpp waaj daan ko jël bu rey loolu rek laay ñaan. Bour Sine mu amoon ñaari question yi ma la bëggoon posé. bu njëkk bi mooy da nga bëreeg ma Lamine gis nga li ci xew nga tourné jël Eumeu Sène Junior lan moo moo moo la dugal ci Eumeu Sène Junior ñun ragaluñu loolu parce que boo demee booy jël avance su mbër rek boo xalaatee ne mënoo koo daan doo ko jël man ku ma xalaatul ne mën naa laa daan du ma jël sa avance di sant sama doomu ndey bàyyi laat mi ak mbay guy gi ak Talla Sarr gars yi bu ma limee damay juum ñoom Sall Bala Gaye gars yi yëpp bu ma limee damay juum Ahmed Lagros Issa Diagne Atou gars yi yëpp maa leen di gërëm gis naa seen taxawaay daal ñu dooleel ma te dimanche mooy gën a metti mooy gën a tar na ñëw dooleel ma ma jàpp waa ji daan ma jël nga ne Eumeu yokk poids yokk doole yéen ñaar seen combat dina doon combat bu gaaw jigéen it ñun ragaluñu loolu ñun ragaluñu poids bi dañu ne met met lu mu gën a rëy neexitaan waaw pare nañu jërëjëf Bour Sine maa lay siyaar bu daan de Bour Sine dama gis ne bii mooy troisième fois ngay dugg géejawaay sa digganteeg Bolokho sa digganteeg Fils de Balla ak Eumeu Sène Junior mi nekkoon taay si nga ñibbi ca géejawaay école de lutte Mor Fadam nga dugg fa bii troisième fois est que dina yomb si yow première question. op na trois te maa ngi ñaan yàlla suturaal ma fi chaque jour dama fa daan génne ndam maa ngi ñaan yàlla mi mën te mën lépp di borom lépp may ma fa ndam si kattanu yàlla. dama gis ne bëre woon na moom duggoon na Bawol. bëreeg sa mag Modou Awatine mu am nu mu fa demee woon est-ce que combat bi du revanche si moom. ah mën na nekk revanche la parce que Modou Awa sama grand di ko nuyu au passage di ko sant Modou Awa sunu grand la mais combat bi daal dina metti parce que bu dee man la rek bu arbitre soufflé dañuy bëre man pare naa pour lépp pare. ngeen di bëre ngeen di bëre drapeau boo xamante bi nii référence la ci réew mi promoteur bi ko tëgg tamit du suñu mbokk. def lu nekk si làmb Bour Sine lan lay ñaax ay supporters am pour teel a duy stade bi ba mu fees ak non violence ak lu mën a xew say say say say supporters ànd ak discipline ndax ki nga xam ne moo tëdd moo tëgg drapeau bi. waaw bu loolu weesoo di sant Tafatine sunu grand parce que jàpp na si contact yeeg yëpp di ko sant bu baax a baax a baax waaw. di sant président Macky Sall parce moom la ñu tuddee drapeau bi drapeau bi dama ko bëgg indi Medina Rinaf parce que. combat bi le 9 la ñun Rue 9 lañ dëkk ñoo ko moom suñu combat ñun waa Médina suñu combat la loolu la voilà. foo toll ci wàllu mobilisation. pare na boo gisee booy rek xam ne pare nañu dimanche dañu koy yëngal waaw ñun ñoo war a yëngal dañu koy yëngal ba mu saf. Bour Sine ana looy tàggatoo ak ana ñan ngay woo ci sa bés boobu di dimanche. waa di woo waa Réfane waa Médina parce que ñun amuñu du Réfane nak Médina ñun amuñu lu dul njoolu. parce que bi ñu nekkee tout tànk ba léegi Medina la ñu foyee fi la ñu jaroo ba defe fi lépp kon di leen woo ñu ñëw jàpp si jàpp monsieur le maire Bamba Fall dama bëgg nga ñëw jàpp si combat bi jàpp si sa combat la tout tànk yi dañoo war a am billet ñëw stade ma jàpp gan gi daan ko jël bu rëy si kattanu yàlla jaajëf jërëjëf